ami site internet buzz actu 221 dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar li ci gën a fës dañ koy doore kaddu yi nga xamante ne nag Mamadou Lamine Diallo daal dina koy wax rek jébbal ko kii di Macky ak nguur moom nag ma ngay sàkku rek ci Macky Sall ak amadu Ba ak Antoine Félix Diome ñu daal di indi ay leeral rek ci koppar yi nga xamante ne nag moom lañ leen dénkoon ne élection présidentielle juróom-ñaari weer képp rek moo dox suñu diggante ak ñoom ñoom nag la may sàkku rek mooy gis na ne nag dépense yi bëri na lool mission yi bëri na nag avocat yi nag fu nekk rek lañ ñuy fëllee di génn jot na nag ñu xam suñu alal fan la dugg moom ba tey rek ki nga xamante ne moom mooy député bii di Mamadou Lamine Diallo la mu daal di xamlewaat rek moo di état bu Sénégal nag dañ ko condamné ngir mu fay 183 milliards kii di